bi ñuy waajal nag day bis boo xam ne ndigalul Serigne Touba la mooy màggal Touba di bis bi gën a rëy ci ñoom ñu yaakaar Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu fête d'indépendance noonu la ko daa waxee kon bis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee muy bis bu rëy ñëw Serigne Touba santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñépp sant leen yàlla suñu borom wéradi gi nag xam ngeen ne gàllankoor na lu bare bare ci àdduna ba tax na sax màggal gi bi ñu koy waaj lépp loo xam ne xam na ne mën na indi lenn ci gàllankoor ngir sàmmoonteeg fi àdduna toll ndax dañoo nekk ci biirum réew seq ko ñi bokk réew mi nekk ci biir adduna yi seq ko waa àdduna kon mënuñoo bedd ko ni ko Cheikh Mamadou Mountakha di waxee looloo waral eh, lenn ci ndaje yi nga xam ne sax daalañu ko def te xam ne mën naa jur fitna wala ay jàngoor di ci juddoo yooyu sax wàññi nañ ko mooy lu mel ne colloque international bi nga xam ne par ñeenti at lañ ko daa def ren jii yàlla def na ngir xam fi àdduna toll tax ñu soppi ko def ko ci xarala yi ngeen di tudde léegi visio conférence nga xam ne ñii dañu nekk Sénégal ñi nekk Arabie Saoudite ñi nekk Iran ñi nekk euh, Irak ba Syrie ak réew yu bari ba Amérique France am na ñoo xam ne conférence noonu lañu ko doxale kon nag sëriñ bi ko xam responsabilité bi la kon lépp lu ko waroon ci wér-a-jege gis ngeen itam ba nëgëni li xew lépp itam gis ngeen jumaay Tuubaa ba nëgë ni li santaane bu ñu julli nañu soriante ak mboolem jàkke yi nga xam ne aju ci moom kon moom pour que ëpp responsabilité ci réew mi kon bu soñoon taalibe yi ak jullit ak ñi dëkk ci réew ñëpp wér bu soñoon nekk ci jàmm ndax seen jàmm ak seenu wér mooy jàmmam moo tax sëriñ bi doogu gi mu ci am ak lim ci santaane sëriñ bi bëggut feebar bi di law ci àdduna si kon Cheikh Maodo Mountakha bëggut lenn luy indi feebar bi law moo tax waxtu wu ne muy fàttali nit ñi di leen wattandikuloo lépp loo xam ne mën na andi jàngoro ji wàllaate kon loolu itam na ko ñëpp xamee noonu yëmu ci it ndax euh, dañuy wax ne sunna mooy lépp loo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wax na ko walla moo jëf ko wala ñu jëf ko ci kanamam te weddi ko sëriñ bi nag yëmu ci wax waaye dafa wax ñëpp di dégg yëmu ci mu jëf ñëpp gis ndax ku ne xam na ne bu ngeen gisee mu jël masque yi di ko takk lépp li mu ci julu mooy wan nit ñi aw yoon ak wan leen fi ñu war a jaar te loolu itam yaakaar naa war naa am jeexe ci ñëpp xam ne ndegam sëriñ bi nga xam ne mooy suñ kilifa mooy bët mooy moo ko jël di ko jëfandikoo kon aw yoon la ci képp koo xam ne war nga ko ma def nga def ko kon ni mu ko defee ni nga ko sant ñi képp koo xam ne mën ngaa jël masque yi nga di ko takk ñi nga xam ne ndax xëy na am nañ ci gàllankoor ndax ñoo xam ne tax nañ jël kaala di ko muuru ndax laa dara darara wala dirara doo lool te doo lool keneen kon sëriñ bi mi ngi ci ñëpp di ci sañ soñ bokkitaal bi nga xam ne euh, xam ne màggal gi bu soñoon ñëpp dañ fi indaale ak te bu ñu fi jugee itam euh, ak wér toppalante kon loolu itam. li nga xam ne euh, médecin yi ak docteur yi santaan nañ ko xool ba xam ne lii mooy lii waral loolu na ci ñëpp maase ci góorgóorlu ji wattandiku ci ba ci biir loolu sax waa mu Muqaddamatul Xidma incha allah ci biir jumaa ji nga xam ne xam ngeen ne mooy barab bi ëpp fu nit ñi daje di fa siyaare ñoom seen yitte seen xariñ incha allah ñoom taxaw nañ ci ba xalaat ci bu baax ba fas yéene tëralee ko noo xam ne ñëpp dañuy siyaare te danañ sàmmonte li nga xam ne àdduna indi na ko waxtu wi laaj ko